yenn ci ñoo xamante ne ni tey xëy na dañ naan ay journaliste lañ mais jàppatuma ne ay journaliste lañ te leer na comme dem nañ ba léegi <laughs> investir ci ay liste xanaa léegi nag dootu leen leen défendre ci ay délit d'opinion yu ni mel da ngeen leen war a seppi ba mu set parce que dañuy yàq seen der loolu mooy dëgg duma ñëw ci di euh, ay wax ci wàllum bulletin yi parce que ñoom alalu askan wi ak coonoy askan wi au contraire buñ sañoon mbir yi day gën a tàkk ba Sénégal nekk dans le chaos total bu ko defee ñu ne voilà échoué nag ñoom conception boobu la ñu am ci politique. te fépp foo xam ne jaar nañ fa muy ministère muy direction def nañ fa loo xam ne balaa nga koy réparer dama leen di jox benn benn misaal Dakar Dem Dikk xam nga ñaata employé lañ fa def. deux mille huit cent quatorze CDI déglu leen baax li may wax ak trois cent vingt sept prestataires boo ko boolee mii trois mille cent vingt deux te moo ne bi ñu bëggee yóbbu bus yi ci tabaski dañoo obligé jëli ay militaires ndax chauffeurs yu doyul est-ce que dégg li may wax waa personnel boobu ñan la te ñëpp ay yi lañ am nag toog ndax directeur bu ñëw yóbbu frigo indi ay nitam directeur bu ñëw yóbbu finalement congélo yu fees chambre froide yu fees lépp masse salariale 1,2 milliard par mois waa ngeen yaakaar ne ngeen te xam ngeen ne est-ce que xam ngeen ne suñu employé yooyu moom la ñuy comp di jox saa su nekk fay déficitu exploitation bi de 18 milliards parce que service public la mbokk yi Dakar Dem Dikk ci situation boobu noonu lañ ko fekk dette bi mu am ci ay affaire fiscale yooyu rek pour te dire que dafa bokk ci daanaka ñu daawul fay fisk quatre-vingt-quinze milliards chiffres yi may wax yëpp yu ñu consigné la teg may invité presse bi ak journaliste ak sénégalais yi lii mooy débat bi nañu wax li nga xam ne moo yàqu ci réew mi te ñu wax ñun fan la ñuy jëlee alal ju ñu koy defaree ñu nekk ci waxtaan yooyu moo gën diversion yi ñeen ñi def nga xam ne ay jouekatu série lañu kon jël nañ ci nag ay mesures yu bëri nekk di wàññi waaye ñëpp xam nañ ne doyul nga dem fu mel ni AIBD AIBD xam ngeen euh, lan mooy budget vingt deux milliards waaye lan mooy recette am sept milliards donc quinze milliards yi fu mu koy jëlee maanaam day jëndee juróom di jaayee ñett pour ngeen comprendre état moo koy compléteel quinze milliards ñun bi ñu ñëwee ci lu gàtt ciblé nañ ci ay contrat ba liggéey ko ba nekk di ko arrêté ci ay contrat yaa ma neex yoo xam ne amaluñu benn njariñ xam ngeen ñaata la ñu économiser réew mi ci AIBD képp laa wax 63 milliards 63 milliards c'est-à-dire man di may wax yépp ci sama ministère kese la yeneen ministres yi énergie mine autre suñu génnee bu ñu waxee ngeen ngeen taf seen gémmiñ c'est-à-dire fépp jaar dañ ko cannibaliser ñoo raw cannibaliser ñoo raw ay ay kaña ci tool kon lii mooy vrai débat bi ñoom lii la ñuy bañ ñu leeral ko parce que xam na ne bu ñu jëlee assemblée bi mais dañuy installer haute cour de la justice te xam naa ci liste bi sax am na ko ci gars yi ciblé xanaa kii mooy jiite haute cour de la justice bi am na fu mu jaaroon ak ñoom xool leen suñu liste yi bu baax a baax léegi haute cour de la justice parce que instant yi li tax ngay gis ñenn ñi di balballu di tëb di wax xam na ne mënaguñ leen a jàpp ndax seen mbubb bi ñu am te te Macky Sall laataa muy dem daa soppi CREI yi ba mënu leen topp en ce moment ci condition yi pour te diir que ñoom dañoo dañoo def seeni mbir ba pare xool naka lañu koy maquiller encore une fois bëri ci mais haute cour de la justice dina taxaw te ñoom ñëpp dinañu wuy benn par benn kenn du rëcc ca kaw ba ca suuf parce que li ñu def nii alalu askan woowu ñoom li ñu jël bu ñu ko delloosee ñu régler problème yëpp. ndax malgré situation catastrophique bi ñu fi fekk ñu ngi continuer di tenir réew mi ñuy dox ndax ingéniosité équipe yi ñu yore ñu leen di rendre en tout cas ñu leen di féliciter di leen encourager moo xam équipe bu finance la moo xam équipe bu économie la moo xam ministères yi ak directeurs yi liggéeyu yaxanal bi nga xam ne ñu ngi koy def parce que vraiment day ñu naan nañu réduire train de vie de l'État mais ñun bi ñu ñëwee ba léegi on a fait que réduire le train de da nga doon fekk budget voyage mais c' est extraordinaire ce que ce que ce que de vous dire c' à dire que dañ dañ doon fo ci alalu askan bi parce que budget voyage ci lu gàtt rek ñu def lu mat quatre vingt millions ñun même période c' est à dire premier semestre quatre vingt millions ay voyage AIBD maanaam premier janvier ba ba ba ba 31 mars ñun avril ba. août comparé à ñoom économiser nañ ñun cinquante cinq milliards millions astafurlah kon pour vous diir que ci dynamique bi ñu nekk noonu lañ ko defee ci téléphone bi ils étaient à dix neuf millions par mois ñu réduire ci dix millions déjà te ça va continuer encore une fois c'est ça les vrais débats ñoom loolu la ñuy bañ moo tax yii ñuy déposer ay recours yeeg yooyu yëpp diversion la te ma wax leen am na si ñoom ñoo xam ne gëm naa ne bëggu ñoo dem élection de ñun ñun du ñu xalaatuñoo def recours parce que dañoo bëgg ñoom ñëpp ñu boole leen mbër muy nu mu ko doon waxee ah seen ba nee na way juróom da leen daan boole bañ mat fukk mu làpp leen dañ leen bëgg a boole ñoom ba ñu dajaloo ñi moom dakaarak ak ñi doon wax ñooy chef de l'opposition ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ñooy borom fuuta tey ñu jëw dàqatu ci liste nationale yi ñëpp la ñu boole duma dañu dañuy bëre par force ñi doon forcer seen bopp waajal seeni i saak pour dugg kaso sax dañ ne leen dangeen di bëre ba pare non dañ mënul ñàkk parce que mbir mi dina neex de léegi nag ñoom seen problème mooy fan la ñuy campagne ak ban xaalis la ñuy campagne fan ah ban fan la ñuy dugg ñoom ñoom lu ñu am ci sécurité lañ ko nar a def fan lañuy dugg di campagne di ñëw di tànqal nit ñi ak naa lañuy jaay xaalis xalaatuñu ko surveiller bu baax de parce que bëgguñ dem élection yii ñuy def nii yëpp loolu la kii wax na ko mais feuille A4 bi ñu ne la nañ ko def a nga xam ne bii dañ koy xaaj kat def ci photo bi def ci logo yeeg yooyu xanaa voté du voté rek waroon nañ ko sax mën a def bulletin unique ñenn ñi ne non du ci daal suñu yoon nekk suñu am na xam ne joxe justificatif de dañ ne suñu yoon nekku ci maanaam débrouillez-vous pour trouver 7 8 milliards de plus ñeneen ñi ne non dañ ciy def photo te ñun suñu tëdd liste yi xamuñu leen waaye ñoom ñan la Macky Sall xamuñu mais problème bi mooy bëgguñu fu ñu dem gis photo Sonko mu leer nañu macha allah mu sell bi su ko defee xam na ne askan bu buñ koy jël duñ ci ànd ak sago te loolu sax mënoon na doon seen atu parce que xam naa am ñoo xam ne bëgg nañ ko boo xam ne au lieu ñu jël ko dugal ko ci enveloppe bi tam ñu jël ko yóbbaale ko pour teg <laughs> mais pour vous dire que juste ñoom ci yi ñu nekk mais bëgg bëre bañ bëre nii lañ ko mën a toppee nga ñëw ci PSD bi ma doon wax fan yi weesu c'est-à-dire ñii ñooy askan woo xam ne dañoo ñëw ne dañuy leb ci turu Sénégal 467 milliards pour tabax ay tali